ay waxtu yu néew des ci korité bi ba tax na ñii di tailleur yi nelawatuñu ba yandoor li ko waral nag mooy ñaw yu bëri. pour l'instant bassin ak bassin xale yi pour l'instant nii bassin xale yi bari na ci marché bi ndax instant bi nii korité xam nga xale yi ñooy ñooy ñooy ñooy ñooy sol yi mag ñi daanaka dañuy négocier rek mais pour l'instant yi xale yi ñoo fi nekk daanaka moo tax ñuy ñaw robu xale yi robu xale yi moo tax ñu koy ñaw ak euh, ay mbase def ci gantir mu rafet daal. ah pour l'instant commande yi moom xaw na yam rek. ba tax na ñoom dañuy toog lu yàgg du ñu jug. man moom bu ma xëyee pour l'instant man moom guddi laay wàccaat ay deux heures trois heures ma xëyee waaw chaque jour waaw ma jullee may wàcce bu ma demee julli bu ma dogee pare dem doxantu tuuti xaw a lii noonu ñëwaat toogaat. mbaa loolu du leen indil ay jafe-jafe ci seen wàllu wér gu yaram. dañ tàmm di wax. hémorroïde mais hémorroïde en normal ay formation la vasculaire yoo xam ne c'est normal bu fekkee hémorroïde bi dafa dem la ñuy wax maladie hémorroïdaire nga xam ne dañuy toog toog bu yàgg wala di constipé di serré toog bu yàgg bi ci ma yenn yenn liggéey yi maanaam mel ni élèves wala étudiants yi wala chauffeurs yi nga xam ne wala sax tailleur yi ci période bi ñu nekk nii côté bi ñi nga xam ne dañuy toog lu yàgg toog bu yàgg boobu noonu day faral di dilaté benn nit ba nga xam ne boo doon ko day andi nit ki day faral di crise crise hémorragique am douleur yu métti la yu intense waaw ñu ngi koy yëg mais nag du tee ñun dañoo doon ay sportif moo tax bu léeg dañuy dañ koy dañ koy bi korité ànd ak sañse ba tax na ñii di tailleur yi dañuy fanaane liggéey waaye nag nañu moytu jafe-jafe yi ñu si mën a am ci seen wàllu wér gu yaram